GHM bi dafa nekkoon benn euh, séminaire qui s'est tenu en deux jours boo xamante ne benn euh, sage-femme qualifiée un professionnel du métier moo ñu ko defaloon en tant que femme participation ci formation bi dafa am avantage yi nga xamante ne population bi xamuñu ko woon man nii xaw ma ko woon ndax man première fois ba ma dalee dama yuuxu kër gi ñëpp ñëw te pourtant buñ ma ci yoon sensibiliser woon waxtaana ma peut-être loolu yëpp du ci am. Ah, jàngal nañu foofu la am importance loo xam ne man lu bëri xaw ma ko woon te foofu laa ko xamee te am nañ ci njëriñ bu baax tamit te ñoo ngi koy appliquer. waxtaanee nañ fa lu am solo ndax euh, ki doon waxtaanal tamit amul benn problème jàngal ñu encore li nga xam ne xamuñu ko woon pour suñuy doom pour suñu dëkkandoo xale yi ñëpp daal pour bu ñu ñëwee mu ñu mën a sensibiliser xale yi daal ci école yi ci koñ bi lépp daal jàng nañ ko fa daal. def naa formation bi formation bi ça m'a permis à ce que may wax ak xale yi. Euh, su ma demee si suñu avec yi aussi maa ngi leen koy expliquer parce que am na lu bari loo xam ne xamoon naa ko mais avec le temps dama gën a jàngaat. séminaire bi permettre nañu ñu gën a mën a am accès à l'information gën a mën a comprendre aussi suñu organisme. am ñam dañuy dox ba ci mbedd bi mu di leen dal te loolu sàggante la. pencum Ndakaaru doon wax ci hygiène de femme ci doon waxtaan yu am solo formation bi intéressant na woon. parce que lu bëri xamal nañ ñu ko woon te xamuñu ko woon ci suñu doom yi ak ñun suñu bopp ak ci association yi ñu bokk parce que bañ fa jugee jàng ci deux jàng nañ ci loo xamante ni xamuñu ko woon. xam naa nu ñuy calculer cycle bi jàng naa à partir de ban age généralement si la règle di ñëw jàng naa aussi que xale yi danga leen di wax. ñu préparer wu pour chaque mois affaire bi bañ leen bett bu ñuy dem école pour ñu pour permettre xale yi ñuy bañ di absenté. def nañ formation bi jàngal nañu lu bëri loo xamante ne xamuñu ko woon jàngal nañu ñuy sensibiliser parents yi ak suñu rakk yi jàngal nañu aussi lu ñuy calculer suñuy menstrues ak nu ñuy xamee suñu cycle ñaata jour la. jàng nañ ko lu wàllum jigéen lu ci jigéen maanaam. biiram li fa nekk loolu lépp jàng na ko xale bi ban temps la war a am règle di la war a gis règle kañ la war a arrêté nit ku ñuul kañ la xale kañ la war a mën a gis lay ménopause loolu lépp jàng naa ko. jigéen ñi bu ñu gis baax nan lay nan lay nan ak nan lay ñëwee si ñoom loolu la ñu doon waxtaan. formation bi participé naa ko ak samay yeneen morom participé naa ko ak samay yeneen morom ci fédération de mais saan app mais apporté daal lu bëri ci loo xamante ni xamuñ ko woon jàngal nañu ko woon te alors que ñu ngi koy dund. ndax bu ñu demee ba choisir la dafa am lu tax ñu choisir la te bu la taxee choisir choisiree am lu tax. boo ñëwee da nga war a joxe message bi jàllale message ba su nekk mën cee jariñu règle duru la bu ñëwee si yow man sama règle bu ñëwee dama doon faral di naan ay garabu olof te yooyu yëpp xaw ma ko woon te madame yi jàngal nañu bu ñëwee lii nga war a naan. tu benn jigéen boo xamante ne ni dafa nekk si mbedd wala école wala fu muy liggéeyee euh, ay règle dab ko fa wala des choses yoo xamante ne du comprendre nu mu demee et loolu noonu yëpp. xam nañ ko fa te bañ ñëwee partagé nañ ko ak suñu morom. xam naa nu ñuy calculer cycle bi jàng naa à partir de ban âge généralement si la règle di ñëw jàng naa aussi que xale yi da leen di wax ñu préparé wu pour chaque mois affaire bi bañ leen bett. su woon xam ne cycle menstruel bu da koy calculer. formation bi jëriñoo naa ko parce que damay sensibiliser sama rakk yi xam ne ñuy def bu ñu gisee seen règle aussi jàngale ma man ma xam lu may def pendant les règles ak après les règles. te tax na ma xam lu ma xamul woon genre xaw ma woon ne la ñuy calculer cycle menstruel tax la ma xam ko ak tamit soo gisee règle jarul ngay gêné wu. Euh, jarul daal nga bañ a sa activité yi nga doon def nga bañ ko def. pour affaire bi mun a calmer wu da nga war a utiliser yenn médica médicament yi. avant ak après coton yi ni ngeen koy defee par jour ñaata yoon ci journée bi loolu daal sensibiliser naa ko ci kër gi am nañu wat ak am naa wat ay avec yi ma dem wax naa leen ko encore comme nii nu ma ko waxee suñu waa kër loolu laa ko defee. cycle menstruel bi dañ ko war a waxtaane ñu bañ a am mu bañ a nekk sujet tabu nga toog waxtaan ak sa doom wax ko lii réalité bi su ko defee moom mu xam conséquences yeeg inconvénients yi yëpp nga wax ko ko ak avantage yi nga xamante ne bu ko xamee moom dina nekk avantage am waaw pour yaay yi tamit dañu dugg des fois ci avec yi waxtaan ak yaay yi pour suñu demee seen kër yi ñoom tamit ñuy jéem a waxtaan ak seen doom yi di leen sensibiliser di leen wan nan la ñuy calculer cycle menstruel di leen wax nan nan lañ koy defee ak hygiène bi buy ñëw signes yii ak yii ak yii ngay gis am na ñaamte ne dañuy am ay signes am ñaamte bu ñu gis ay signes. lu ñu fa jàngal mooy par exemple suñu cycle menstruel maîtriser nañ ko maîtriser nañ aussi jigéen su amee age bii nii war na mën a am doom war na mën a moytu lii war na mën a moytu lu bëri war na mun a set si boppam. parce que yenn négligence yi moo ñuy andil yenn infection te yenn infection yi moo ñu jural nga dem ba benn âge bi nga mën a am doom te on est dans une société boo xam ne c'est traditionnel di nga jàpp ne diw moo ko def wala diw alors que yow yaa sa sàggante moom sa ko mbirum réegul xale yi léegi ak ndaw yi ndaw yi léegi yi daal dafa métti xale yi ni koy gisee metti na da nga leen sax yërëm ndax ñii da leen di def biir buy métti ñi mu leen def loo malaise ñu ne laa lay ñëwee. mën nañu jël garab yi def ko seen saak defaale serviette hygiénique yi seen saak. association yi avec ñu bokk tasaare nañ ko ci ci jigéen ñi nekk foofu yaatal nañ ko bañ ñëwee wakaam dañ ko yaatal ñun ñëpp ñëpp jariñu ci man ñi am na yu bëri xamuma ko woon instant yi ñoo ma ko xamal maa ngi ciy wax ak sama doom yi te man sama bopp tamit. wax nañ si loo xamante ni si jigéen ay ay ay calculer cycle ak yëpp foofu laa ko découvrir ba tax man ma xam ko maa ngi ci commencé sax di noter sama kaye di xool niñ koy calculer et tout. Ah, damay sensibiliser suñu waa classe yi ak ñeneen samay rakkee dama leen koy wax pour aussi ñoom tam ñu wax ko seen waa classe yi dama koy wax sama yaay aussi bu demee si natta yi ñuy def si koñ bi ñëw xante ko seen biir jàppale xale yi. ma gën mooy. période bi ñuy jàngale ni jigéen diggante bi mu war a a am doom diggante bi mu war lépp am njariñ moom mais côté boobu moom marqué na parce que li ma ci jot a xam xaw ma ko xaw ma ci woon te ma ci xam. balaa ngaa gis sa baax euh, ñeenti fan wala ñetti fan wala moo ñëw sa yaram bi ni muy réagir soit nga am fièvre wala nga am ay bouton euh, sa yaram sa kanam. wala nga am xel bi teey balaa moo ñëw wala nga am métti bii sa bas ventre di métti sa sa sa sa nëq wax di di euh, balaa moo ñëw yooyu yëpp xale yi duñ ko xam te foofu tam jàppale woon nañu ñun sax yenn saa duñ ko xam dañuy dañuy xool xale yi duñu wax dara duñu waxtaan ak suñu doom yi si si boobu boobu kii problème boobu am nañ ko ak suñu suñu xale yi. le message focus ba xam ne ci lañ gën a mën a war a gën a mën a concentré wu. c'est la propreté et parce que ça peut nous être fatal en réalité en tant que femme parce que képp kuy jigéen ñi ñaan nga yàlla ëllëg boo sëy jee pour que tu te procrées nga am koo xamante ne c'est à image moom lañ lay xoolee donc te manque d'hygiène bi sàggante boobu noonu mën na la jural ba ëllëg doo mën a am le bonheur ou le plaisir d'être maman. pencum Dakar moom dañ koy santati ndax yàgg nañu yóbbu ci ay formation yi nga xamante ne dañ cee gis njariñ ñoom ñu ngi koy remercier bu baax a baax ñi jiitu ba ñu si nekk si suuf ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm ndax wax dëgg fa yàlla ba ñu ñëwee Dalifort ba tey xam nañ ne changement am na Dalifort Dalifort bu njëkk ba ak bi yaay une grande différence kon pencum Ndakaaru jaaraama lañ leen di wax di leen ñaanal ñoom ñëpp gudd fan ak wér yàlla may leen ñu gën fee taxawu xale yi ndax ñoom xale yi moo leen tax a jug ndax boo ne xale xale mooy màgg ëllëg ndax xale moom boo ko tàttagalee ba mu nekk xale bu nga xam bu responsable su mooy l'avenir de demain moo tax ñu ngi leen di sant di leen gërëm am ñu daal seen fay pencum Ndakaaru dama leen di sant bu baax a baax a baax dama leen di sant parce que bu ñu fekkee ay nit yoo xam ne par exemple comme man am naa ouverture ak nit ñi ñu jël la formé la ngay dem di sottiwaat xalaat ci ñeneen ñi loolu wax dëgg yàlla sant yàlla daal di leen ñaanal ñu gën a yokk daal formation yi di gën a bari nag di ñaan loolu surtout. maa ngi euh, sant di gërëm association 1347 bu ma permettre ma dem euh, def formation bi ba jëlee si njëriñ ba dem di ko partager ak samay morom. message bi may lancé mooy que ne comme formation yi bu bu mënoon di di bari daal li may lancé bu mënoon di bari parce que comme ñu gën ko mën a tas daal parce que intéressant na que. bu buñ ci dimbaliwul mu xaw a bari rek sama mbokku jigéen ñu bari ñu xam ñu ñuy préparer seen doom yi ak ñoom tamit ci seen bopp li nga xamante ne war nañ ko dolli seen bopp daal man daal loolu laay gën a lancé formation yi bu gënoon di bari. waaw dama leen di wax daal bu ko defee buñ gisee seen cycle ñu def naa ko ñu xam ne waruñoo paniqué parce que loolu ñëpp a koy gis jigéen yëpp presque dañ koy gis bu nga xamee ñu xam nu ñuy def ñu dem ci seen parents yi wax leen nan lañ war a def. waaw maa ngi leen sant di leen gërëm. di leen wax kontaan naa parce que ñun ñëpp a xàppi formation bi neexoon na te xam-xam bi du deñ ba tey dafa des ci man kontaan naa trop mais vraiment jërëjëf. ñu ngi gërëm waa Pencum Ndakaaru si liñ ñu recevoir foofu euh, durant deux wax ak ñun si loolu ñun yëpp ñun xam nga ñun dañuy topp jaay beeg wala topp sa liggéey ba doo doo doo focaliser xale yi ak seen éducation. ak Pencum Ndakaaru moom. lenn rek lay am euh, muy merci rek parce que ay xale lañ mais teewul ba léegi ñun ñi ngi def loo xamante ni suñu bopp macha allah loo xamante ni ay xale lañ mais fu ñu taxawee jëfe ko moom lu raw incha